mbokki internet Casamance Actu euh, TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci taamu bi ñeen taamu Casamance Actu euh, TV euh, mbégte la si ñun tey nag suñu reportage di féeto ci li nga xamante ne mooy sedda bi comme sedda bi mu ngi dugg si ak dole moo tax ñu ambité euh, doxantu si population bi xam ñu nu ñuy euh, défendikoo euh, ak seddaay bi mais tamit mais tamit si ñi nga xamante ne ñoo ñooy jaaykat yi yëre seddaay yi ñoom tamit ñu wax ñu ndax am na déjà ay stockage yu ñëw pour population bi. alors ñu ngi si seddaay bi yow nooy protéger contre seddaay bi. wa man sedd bi comme ni mu koy dundee mooy lenn euh, teel a yew fanaanal ndox sangoko ko diw bu ni rek sol sama yéré diis pour man nu la koy dundé man man sedd moom sonaluma sincèrement wa sedd mom sonaluma lu rek la ci mëna wax mom ci ni dundé ci sedd bi sangu diw sol sama yéré diis mesuré sama pa ñu marché wa lu dal la koy dundé euh, sol yéré yu euh, ban sar yéré yu ngay jënd ngay sol. Ah, man maanaam blouson laay sol lu cëpp blouson laay sol waaw blouson rek waaw sama sol yëre diis moom blouson parce que ragalu ma ko daal parce que ragalu ma seddaay nag moom. parce que kuy teel yow di sangoo ndox bu sedd moom xam na ragaloo seddaay <laughs> waaw lu sori laa ci lu rek laa mën a wax noonu. <laughs> da ngay laal diw. waaw diw moom amul tàngaay amul seddaay parce que sama yaram moom dafa miin diw mënuma laal ndox te diw ma nag. waaw xam naa ñuulaay bi moom diw bi moo ko yokk mënuma laal ndox te diw ma moom sama yaram moom lu la tàmm waaw. looy conseil nit ñi euh, lu dem si protéger wu contre sida bi. waaw mooy comme ni mu ko waxee rek song ba seet diw ba sa yaram niin sol sa yëri diis waaw sol sa yëri diis sol sa dàll fermé rek nu laa leen mën a conseil daal ci man pour man waaw loolu mooy sama xalaat bokk wala sama conseil ci ñoom sangu diw ba niin sol sa yëri diis ba tey mais. sedd Dakar ak euh, sedd Ziguinchor moom xam nga bokkun waaw parce que fii moom mu yàggul day sedd tey suba mu tàng day sedd tey tàng suba seddaay moom yàggul. kilo verde lan la lu xew. daa sedd xam nga rek temps décembre mi nii day xaaw sedd tuuti rek waaye bu demee ba si ay le vingt cinq yooyu noonu lay gën sedd sax moo tax. yow nag euh, da ngay sol pull kese wala noo koy nooy jëfandikoo ak moom seddaay bi donc seddaay boo yee balaa ngay dem école il faut nga sangu e te sangu xam nga ñeneen bu sedd xaawee sedd nii ñu ñemee kii ndox bi il faut nga sol pull <laughs> waaw nga mën a kii tan seddaay bi. daal da ngay diwoo laal affaire yooyu rek. waaw lu muy diwoo il faut nga diwoo bu noonu tam da ngay weex. si classe bi du lay du lay sonal si classe bi. am kay da lay sonal mais xam nga rek boo solee pull moom day xaaw tane tuuti. parce que classe bi euh, prof bi da leen def ay exercices yooyu pour aw a dakk si seen. bu ñëwee de pour ñu am effort pour jàng nii suñu yaram béyee ko day wax ñu jóg ñu taxaw tuuti jéem a kii suñu loxo yi nii tuuti frotté wu nii tuuti rek pour bi xaaw leen nii tuuti rek. looy wax sa morom élèves yi pour euh, ñu protéger aussi seddaay bi. ah mi wax sama eh, sama morom yi pour seen yaay dimbale leen tam si kii bi pile bi. am na am na ñeneen bu ñu ñëw école seddaay bi daf leen di kii mais du ñu am pile bu ñuy sol. mais seddaay bi dugg si na presque ak doole euh, yow nooy jëfandikoo ak moom. waaw seddaay bi comme d'habitude rek dañ koy dund avec euh, comment dirais-je habituellement je peux dire parce que euh, c'est pas la première fois yàgg na yàgg nañoo dund période tàngoor yàgg nañoo dund période sedd kon c'est pas la première fois ñu dund loolu kon bu ñëwee nii dañ koy jéem fagaru avant parce que les mesures barrières man nañ né man nañ ci tamu ay yéré yu dis genre yu démé non mais nak bo xolé actuellement ni dëkk bi dafa dëgër té en plus jaay bi dafa xaw cher té en plus bo bo bo amul moyen pour nga jënd li nga xamné moy mesures barrières yi li ngay fagaroo day xaw metti ci sa côté certes que bu fekkee yaa ngi yow célibataire nga de 1 Albert moom ku ne xam na sedd bi neexul ci moom de deux bu fekkee ne yow euh, dëkk bu dëgër bi ñuy wax noonu comme on le dit souvent frappé na sa côté moom it euh, da ciy joué dans ce bu fekkoon ne comment dirais-je mën nañoo dimbale dimbale ci prix yi mu xaw a tuuti am nekk prix yi abordable daf ñuy arrangé d'une part je peux dire. loolu yëpp euh, lu métti si nit ñi la yow euh, ban euh, façon nga koy kiiyee eh, nga <laughs> koy jël nga protéger wu. pour man man wax personnellement parce que bu fekkee ne tey am nga sax tuuti argent de poche nga mën see jënd say quelques vêtements yoo xam ne dina protéger contre cette bi ça t'arrange d'une part mais tamit d'autre part on est obligé de sortir tôt le matin pour travailler et genre et tout parce que mënoon na sedd bi ñëw na boo teelee yeewu sedd bi dalay xaw a sonal damay tëdd ba xaw a naaj bi xaw a euh, jug tuuti ma soog a jug dans ce cas sa liggéey day tardé wala da nga am yenn préoccupation yu bëri yoo xam ne di nga ko mënoon def alors que tel n'est pas le cas doo ko mën a def faleek nga forcé waaw ñafe jóg xam ne moom moom lii moom du c'est pas la première fois comme je l'avais dit mais nag on est obligé de le faire noonu lañ koy dundee rek di sol ay yére yoo xam ne moom danañu mën a protéger contre sedd bi genre et tout. sedda bi euh, dugg si na euh, yow nooy jëfandikoo ak moom. man ci seddaay bi laa gën a euh, kii sawar seddaay bi bu ñëwee laa gën a sawar tàngaay bi bu ñëwee damay sonn waaw loolu may sol piliweer sax waaw. daal si seddaay bi l'essentiel nga sangu ba pare diwo jeex na. jeex na. xanaa ma dem foo xamante ne daal seddaay bi bare na mun naa sol lu gën a diis wante fi moom Casamance seddaay amul waaw noonu seddaay bi benn weer rek jeex na léegi bu commencé weer bi weer bi ñëw bu ci topp rek tàngaay kese waaw waaw. moom maanaam yow euh, seddaay Ziguinchor moom sonalu dara. déedéet sonalu baax na ci man mhm, baax na ci man. ci kay ci ngay gën a am wér yaram. waaw ci laa gën a am wér gu yaram xam nga seddaay bitam tam bu sa yaram neexulee ci seddaay bitam tam di nga sonn waaw ci tàngaay bitam su tàngee ci la nit di wér wante man daal lépp laa yemale. bëgg naa seddaay bi bu baax waaw waaleykum salaam waaw. même yow seddaay bi sonalu la bu baax euh, mais loo ñaax euh, li nga xamante ne euh, nit ñi pour ñu sol lu diis tamit ñi nga xamante ne seddaay bi dañ ko yéeg bu baax. waaw su ma solee diis ma doxantu fu ma war a dem dinaa ñax ci seddaay bi. Nous, euh, ici, ñu ngi si bi euh, euh, bon d'habitude man bu may rek damay sol parce que des des des mais bon ñu xam mag lañ il faut que ñu sol xaw a diis tuuti ndax quoi ban façon. léegi man fii à Ziguinchor moom du may sol pelle vert sax bon damay sol rek yére yu xaw a am yu xaw a am yu xaw a diis tuuti rek mais gis naa ñeneen ñi moom moom ba dañuy sol ni kii ça dépend si kooru nit ki am na ñoo xam ne mun nañu supporter am na ñoo xam ne bon mënuñu supporter même sedd lu mu tuuti tuuti ñoom foofu ñu sol kii ça dépend si santé nit ki rek quoi. Hmm. mbaa yow si temps seddaay bi doo du la sonal loolu. bon sedday aha kay dina ma sedd parce que suma yaram bi day eh. weex encore suma tank yi des fois nga gis mu am ay fissure des fois day def non waaw day def day def fissure mais à part ça moom bu sedd bu da ngay gis fissure yi dañuy bay waaw ah, yes sonal ko tank yi rek ñoo may sonal hmm. ay ah, soj moom sonal la soj bon man ma di soj ma di soj soj moom ma di ko def ni ni ni sojee ni man bëriwuma di soj Rar ma laay sëñ rare ma waaw alhamdulilah nii nii nii moom euh, préparé nga lépp pour bu gënee am doole rek nga préparé ko ah, waaw maa ngi ak sumay diw maa ngi ak sumay kii sumay frotté des fois bu ma wàccee sax damay frotté yaram bi waaw pour le lendemain ma mun a kii quoi waaw bu may tëdd tamit des fois damay jégal suma mbajj bu dee kii na sentir naa fraîcheur suma yaram rek ma couvrir bien ay bi ñëw naa ko doole est euh, am ngeen ay stockage yu bëri yu ñëw. waaw waaw am na ci jot a stocké waaw mais maman biñ toll nii nag moom comme seddaay bi day door di commencé euh, mu client yi ñëwaguñ noonu mais xëy na kom fenn ma bi li muy door di commencé la mais xëy na dinañu ñëw daal. waaw am nañ ci yaakaar parce que mi ngi commencé dox ndànk-ndànk tuuti tuuti daal. waaw par rapport ak woon nag moom mais jamono maman biñ nekk nii dëkk bi moo xawoon a dëgër. mais am nañ ci yaakaar ne daal dina changé daal parce que client yaa ngi ñëw ndànk-ndànk xam nga parce que ku nekk yaa ngi préparé sedd bi ak décembre bi nii waaw te xam nañ ne bi biñ nekk nii si ngeen soo day xaw a sedd daal moo tax jamono biñ nekk ni daal loolu mooy gën a dox décembre tamit xale yu jigéen tamit ñoom dañuy bëgg ay yére comme yoo xam ne ay robb ay affaire yu ko dañ ko si dee boole yooyu noonu ko ay tranique yooyu yëpp dañ ko dee jaayaale daal waaw ñun nag moom dañuy jël ay bagage di wër si dëkk bi di jaay noonu waaw noonu lañ def waaw waaw. mais quand même yaa euh, gis sa bopp. waaw ñuy sant yàlla rek sant yàlla xam nga léegi moom loo nekk di si suturawul rek waaw sant yàlla daal ndax euh, prix daan am ak bénéfice bi daan am bu njëkkoon léegi moom amatul daal mais léegi daal. da ngay def ndank ndank rek baña xeb dara dal parce que commerce mom mo démé nonu dal parce que jamono biñ nek ni commerce bi dafa bari affaire yi dal motax ku ci nek dal da ngay forcer ak touti touti rek sante yalla alors yow loy ñaax nit ñi euh, pour euh, ñu protéger ci si seddaay bi. wa lima len di ñaax moy ku nek dal nga xolaat sa bop ne xamne li dal sama wergu yaram la kon dama wara protéger bu baax li nga xam bi moy mooy baax sama wergu yaram parce que wergu yaram mom nit lu mi am ta amo wergu yaram mom da melni ni dara quoi mais wergu yaram boko amé rek am nga lepp quoi wa parce que wer mom ci lepp lépp wa c'est waaw. Seyda bi euh, presque ak euh yow da ngay jaay euh, pilo vert euh, no gisee client yi bari nañu ren wala pour l'instant wuñu waaw bi mom commencé na mais ki mom danaka bi mom la mom njaay mi daa doxee doxeetu ko ndax nit ñi lañ waroon a am amatuñ ko nit ñi ñu waroon a mën mënatuñ ko te tamit dëkk bi amatut xaalis ñu ngi jaay waaye njaay mi njaay moom dañ siy suturlu rek ndax bagage yi dafa seer ñu ko indi dañu ko jaay fi dafa seer trop njaay nag bu seeree nga bëgg cee génn cee frais bëgg cee am dara day xaw a métti day xaw a métti waaye wax dëgg yàlla moom ñu ngi ciy suturlu ndax nit moom lépp loo xam ne yaa ngi ciy faj sa soxla rek ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax waaw mbaa ren eh, am na ay stockage yu ñëw yu bëri. non ren moom fëgg jaay bu bëreegut ndax xam nga Ziguinchor moom daanaka moom sedd bi moom du bëri Ziguinchor wala bu bëri itam du yàgg sigaru sedd Ziguinchor du yàgg. donc looy ñaax nit ñi eh, pour ñu protéger wu ci seddaay bi. waaw ndax protéger moom même bu dul seddaay tamit nit moom fu mu war a nekk dafa mën a war a sol ay yëre surtout yëre bu diis ndax sedd moom amul problème lii problème mooy ngelaw nit bi protéger ngelaw lay protéger mais pas sedd man damay sedd jël protège mais ngelaw mo jël protège waaw li wax na nit ñi nit ñi jënd yëri ndax fëgg jaay wax dëgg yàlla moom yàlla def na ci barke euh, comme yàlla def na ci barke timit ñun ñëpp dañ ci ñaan yàlla daal pour am si jàmm ñu gis si suñu wërsëg daal yow euh, da ngay jaay euh, yëre seddaay yan façon ngay jaay waaw dañ jaay pile xale di jaay yere xale yu góor yere xale yu jigéen ay yere sedd balik ay compor ay kilot ay pantalon lépp dañ koy jaay ay body ay ba ay t-shirt lépp dañ koy jaay bayiwun dara waaw ba ci ay drap de lit lépp dañ koy jaay ñun dal fëgg jaay lépp lu ñëw rek dañ yëngu ci loola mais quand même yow da ngay jaay mais da ngay protéger wu tamit nokoy koy jëfëndiko ak sédday bi waaw sédday moom ñu koy protéger moy solo 10 rek sédday daal bu ñëwé jëral pile yu 10 yi nga defar bam jekk nga sol ndax jaay ko fëgg jaay no ba la wara doon dal waaw non la def dal sol si di si solo suñu njaboot daal di si faj suñuy soxla ak suñu aaji lépp moom fëgg jaay mi ngi ñu koy may wax dëgg yàlla. kon mbokki internet Casamance Actu euh, TV euh, ñoo ko déggandoo euh, fii ci Ziguinchor nit ñi daa mel ni ñu ngi bàyyi xel ci li nga xam ne mooy sedda bi pour ñu mun a protéger wu parce que seddaay des fois bu dee sa yaram neexul seddaay bu egsi rek feebar yu sew yi dee feeñ si yaram bi loolu yépp nit ñi jël nañ ko en considération pour ñu mun a jëfandikoo ci li nga xamante ne mooy seddaay bi mais tamit ñun waa Casamance Actu TV ñu ñu ngi leen di conseil tamit ngeen sol ay yëre yu diis pour ngeen euh, mun a protéger wu euh, contre sedd bi ñu ngi leen di jaajëfal ci seetaan vidéo bi ba beneen yoon incha allah.